ku la ci gën a tuuti boo ko joxee bëgg ko fee lañ koy teg soxla wuñ ko ba pare codé ka loolu ko codé ne maintenant loolu ñu fiy wuri ah Mariam loolu mooy loolu moo nar a sànqale est-ce que xale yi xam nañ ko. loo loo loo codé lu ne de bëggoo ñu xam la. ci biir c'est ça xale yi warul nekk ci diggante doom ak waajuram. wallaahi donc ñun ñii jigéen ñi am nañ ci part de responsabilité waxoon naa ko te dinaa ko répété. Hmm. parce que jigéen tey dëgg la jamono changé na léegi. ñëppay liggéey émancipation am na parité am na ñëppay liggéey mais nga la loolu bu mu tax ñu fàtte suñu njaboot ndax am na nooy gérer boo teelee yow fajar mën nga toppatoo sa doom ba pare doogam xëy teg ko ca loxo ya nga ko war a teg. fa mu war a xëy mu nga yóbbu ko ba mu yegg mu xëy nga doog a dem nemmi ko sa doom avant ngay xëy soo wàccee it même bu dee benn 30 minutes nga may ko sa njaboot toog ak ñoom xool la ñuy def xool ca la ñu nekk nga apporter leen benn soutien bu ndaw won leen xàllal leen yoon wi ni leen lii la ak lii la ak lii la nga xam ci lan la ñu nekk mais am na parents yoo xam ne seen yoon nekku ci. duñ ko def bu ñu ñëwee dañuy sonn tëdd la ñuy tal wala ñu nekk ci yeneen faale ñu sa xale yi. taluñu mais dañ leen war a tal nag même bu dee tuuti mais ñu xajal ko parce que loo loo loo jéem rek mu sotti nan ko xaj-xajal ci suñu emploi du temps même bu dee benn une heure par jour ñu sacrifier suñu njaboot toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xam ci lu ñu nekk xam li ñuy def même donte sax mënuñoo xam lépp mais bu ñu jéemee bu yàggee parce que yaay am na nu muy approché doomam muy doom bu góor ak doom bu jigéen kumpa dootul nekk seen diggante bu approché doomam kumpa dootul nekk seen diggante buy def dara sax dina kan yaay man kat lii laa bëgg def wala lii nga ne ko noonu man de su ma sañoon dëgg la gaa léegi yéen seen génération lii la ak nii mais doxalee ko nii. wala defee ko nii mais approche bobu moi amatul léegi ci parents yi entre les parents et les enfants approche bobu moi amatul motax violence yi beuri xalé yi ci internet bi lañu nek nekk yin leen di won ci tiktok yeeg yin len di won ci facebook yi ken xamul yu dara baxu ci gis madame violence yeeg ken kenn xamul yef na la ko def dossier bi nga xamni pour wane c'est-à-dire manam euh, en en en digeunte yaay ak dombu jigen quoi dombu jigen n'est-ce pas complice mm-hmm. ak yaay ak dombu jigen mm-hmm. mais soo ko xaymaa fukki ji fukki yaay yoo gis fukki yaay yi gis yooyu gis. juróom juróom juróom juróom ñett ya juróom ñett ya amatunu maîtrise si seen doom. maanaam xale bu jigéen. bu daan gis baax pour la première fois day daw yaay day. ñu yaay ñëw toog kaay nii tegal ak ça. fukki femme jigéen yoo jël. ñoom nee na xoolal seen doom ba ñuy gis ma xamuñu ko day jëkk daal waaye yow ndax mu ne ko yaa même sama ko xale bàyyi day jékki <laughs> moom mu ne ko waaye yow <laughs> lii kan la amatul te yoo xam ne yaay moo ko dal téye doom di ko teeru naa ko des na tuuti di nga toog bis boo toogee lii nangam ah. sax bu amee lii di la wax yoo xam di la teg nag ay garde fou nee na fii nga toogee xam lii mooy lan mu naa ah, mën a ko yow waxuma la waaye góor bu gisee sa poche sax yàqu ngay xel. yooyu moo fi jóg léegi su ko defee nag léegi xale bi. yaa ngi jot sax toog ak seen léegi nag xale bi fan la xamee boobu nag fan la xamee luy loolu baax ak nangam. Ah. beneen la internet ba jàngandoo yi et consort donc loolu dafa transfert wu xale yi dañ jël amul ñu kaweel ka seen bopp dem wuti faneen wuti waa beneen ndey. waaw tu comprends.